asalaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV di am mbégte ak contentement di jano génn chaque jour waaye li gën a cofeel gi yokku mooy di leen indi li gën a fas ci xibaaru làmb noonu laay def ne saraax ci journal suñu làmb ba mu xëyee ci xatam bu njëkk na comme xëyee revanche contre B52 de Mbour maanaam xale ba ca Mbour foudroyé par Modou Lo épinglé par Lac de Guiers numéro 2 le puncheur de Walo Eumeu Sène doit éviter une troisième défaite successive lu tax ñu wax loolu maanaam bu ko loo Lo daanee Lac de Guiers numéro 2 daanaat ko kii di Eumeu Sène su amaatee troisième défaite maanaam mooy tànkam ya mu ngi ko biir saako ya te ñaanaluñ ko kenn maanaam combat bi daal faama fa la war a yeewoo daal di xuggaliko wala fa la war a bëggalee ñi nga xam ne mooy fan seen parce que amaana ren det moom mooy di Eumeu Sène ba noonu nag dem ci nga xam ne mooy Max Mbargane Max Mbargane nag nga xam ne mooy ménagéru phénomène ba ca Lamsar di Siteu tarkindaa bi digganteem ak nga mooy Papa ba mu yàqoon ak keroog ci arène nationale kii Max Mbargane mu ngi xamal ci journal bi ne combat le ñu ngi koy démarché bu baax a baax a baax maanaam sori nañ ca waxtaan ba li ci kanam tuuti di raw gët te doon nag coach Socé la muy xamle nag ci journal bi diggante Kaw Gourdin xale ba ca Dalifor ak nga xamante ni mooy Ronaldinho nee na combat boobu daal ñoom ñaar amul favori cinquante cinquante la maanaam ñoom ñaar ñoo yem ci ay sens ci làmb joojee ba noonu nag mbay guy gi combat mu nga xam ne après ba mu daanee mooy mbay guy gi zarko ndax dina teg bàyyi ma joon war a déet combat ba nag taxaw na combat bi ñu ngi koy waaj bëri na coow ñoom ñaar ñemente nañ yabante nañ dañuy xaar na combat bi mooy ndax Zarko dina teg nga xam ni mooy Baye Mandione ba léegi nag Bébé Diouldé Bébé Diouldé nag mu nga am combat waaye nag la muy def mooy mettre en garde adversaire am di brise de mer numéro 2 la mu koy xamal nag mooy ne ko bu taxawee dëggal boppam moom lay jouru combat ba dina ko daan daal di ko yóbbu top cinq ca noonu nag ca kañ jëm mooy suñu papa Mouhamed man du ma ne sax Mouhamed Aly Ndiaye waaye Amadou Kati Diop mu may suñu moom may jiite écurie Fass ak la ñuy xam ne la ci journal moom moom lañ chargé mu recruter ñi nga xamante ni ñooy dem ci Jeux olympiques bi nga xamante ni de la jeunesse la kan lay amee vingt deux mille vingt six faama loolu yàgg na trop moo tax bi dem na sax Jeux olympiques yi nag deux mille vingt six lay amee Ndakaaru Ndiaye jël Diop kii di Kati Diop moom lañ chargé moom war a def détection bi maanaam. sélectionné mbër yee bokk ca compétition ba waaye it formé leen ci loolu la compétition ba léegi Sawru Fall moom ca combat bi dox ci diggante ñaar bu ndaw ak rëm ca lay wax lam cee xam ne ne combat boobu combat éclair lay doon lu tax combat bu dañ ne combat bu gaaw a gaaw ndax moom xam na ñaari mbër yi bu baax a baax ba léegi nag ki nga xamante ne nii mooy fëggala bu ngor fëggala bu ngor nag moom it mu ngi mettre en garde adversaire am di fils de liir la nga koy xam ne na combat dina métti te dina yàgg maanaam dina am xeex dina am bëre te dina daan daal dem ñibbi ba léegi nag ñu desandi ci journal suñu làmb bàyyi ma njoon ak Zarko sa promet l'enfer maanaam ñoom ñaar ku ci nekk yaa ngi tëkku sa morom waaye yaa ngi waajal sa morom lu méttee ba léegi nag ki nga xam ne mooy Ibu Afia Ibu Afia caatu la war a caatu Puyol la war a bëreel juin combat boobu nag lay amee ñu ngi koy xaarandi ba léegi ba léegi bébé diwaan yaxiir la war a bëreel ñoom nag dañuy defiyante du xeex du bëri la ñuy defiyante nag mooy wàllu mobilisation maanaam supporter kan mooy ëpp supporter ca stade ba jour boobu ba léegi nag prési production prési production nag danse la muy fecc nag mooy jour ji weekend bii nii dina ñëw ci arène yi maanaam dina tëgg ay làmb yu mag a mag a mag ba léegi dañuy ñëw ci nga ne mooy CRG bu Kaolack daaw defoon na ko daal di tëgg lutte simple teg fa mise bu am doole ñi daal di fay ñëw fekk fa kantre mooy président Bira Sène daal di koy teewe ndax dëkkam lañ koy amale tey ji nag le 28 mars bi ñu jëm nii nag avant ñuy dugg ci koor gi CRG bu Kaolack dina teg 1 million cent maanaam un million pour poids lourds yi 500 000 pour poids légers yi ñii daal di fay dem indi leen lépp lu fa xewee incha allah ba léegi nag gala bu CNG bu teg maanaam comité national de gestion bu lutte sénégalaise moom nga xam Bira Sène moo ko jiite keroog ba mu tegee 500000 fee ca Ibamar daal di ko teg lutte simple 5 5 millions la teg autant pour moi fee ca Ibamar ñaata mbër ñoo ca compétition ñu ne 166 lutteurs ñoo ca participé ka jël raw gàddu ga nag di Serigne Ndiaye numéro de kan la daan ñu ne Doudou Sané ba noonu nag ki nga xam ne mooy Siteu. phénomène ba ca lamsaar tarkindaa bi yalmin bi ki nga xam te ni doomu père Max Mbargane la moom nag mu nga ci États-Unis waaye la jaaxal nit ñi duñ ne sa la jaaxal nit ñi waaye lam indiwaat ci lu bees ci moom le mu ngay affiché wu ak ki nga xam te ni mooy international ba góor gi si Dieng naan ko si sita tarkindaa bi foofu seet na wala seetut bu ci kanamee dinañu ko tontu ba léegi nag la ñuy jeexandi ci journal suñu làmb mooy open press bi nga xam ne ni mooy am ci diggante Bombardier ak Eumeu Sène Eumeu Sène day def open press am tey jii le 21 Bombardier di adversaire am nag moom dina def open press am waaye le 22 la koy amali ba léegi ne dañuy dugg ci li nga xam te ni mooy Leewtoo point net Leewtoo point net lam ñuy xamle nag mooy kii di Kaw Gourdin ma ngay préparé combat waaye ci jour yu mujj yi pare na lool lool lool pour bëri ki nga xam ne mooy Ronaldinho la muy xam ne nag mooy kii di adversaire Ronaldinho jàngu ko xamu ko ndax moom li mu xam mooy jour si bu ñëwee këm war a bëri mu bëri yow waaye daan la daan bu yomb daan di ñibbi jox waa Dalifort lu ñu bëgg ndax dañ ko yónni daal di ko yàqamte la ñuy jeexale ni nag mooy Leewtoo point net ba léegi ki nga xam te mooy aada Fass ginnaaw ba mu daanee jokkeel ca arène nationale combat bu rëy boobu loolu mun a amali moom nag la mu bëgg instant bi nee ma ndey Mbacke nañ ma jox poids lourd yi ma bëri ak ñoom damaa sonn ci def ay preuve ndax ku ma bëri rek ñu ne Ada Fass moo ko mën te damaa doyal ci loolu damay bëgg fu mu ne nii nday mbaaki ku may bëreel ñu ne Ada fas tey mu dee tey mu dee boobu nag la bëgg ba tax na mu bëgg a janoo ak luur yi ku ci mel ni ma ma ko nee Zoss ndax pare nga ku bëre moom mu ne ma Zoss bu ñëwee ma bëre moom ku bërewul ak man tey jii déwén dinga nga bëre ak man te boobu lay gën a métti ma ne ko lu tax loolu mu ne ku bërewul ak man xale bi day màgg déwén te bu màggee day gën a métti suñu diggante ñaar ma ne ko lu tax loolu ndax pare nga pour bëre nga xam ne mooy caatu yaraax mu ne ma caatu yaraax dafa ma xem dafa ma ne du bëre nga xam ne la demi demi tour te man damaa daan ci kawam fu mu nekk nii nag ku bañ a ak man rek da nga maa ragal ma ne ko da nga ragal mooy lan mu ne mbëri dañ maa ragal ñemew ñu xam nañ Ada dafa nekk ci yoon waa Fass Ndakaaru wala waa Fass Benno dañ ko yónni daal di koy yaakamte moom lee di Ada Fass te noonu nag xam naa ne bu ngoon di dinaa dem ci nga xam te ne mooy Zos ak caatu yoraat ñi daal di indi ay tondu ci li nga xam te ne moom la Ada Fass wax supporter na lan ñu ne Ada Fass mafia alma jaasi bi la kan lañ bëgg ñu ne supporter ne Siteu lañ bëgg xaw ma nag Ada ko wax wala ay mbébétu supporter am noonu nag moo gënoon fës ci xibaaru làmb tey jii nii noonu laay def tàggatoo ak yéen ba suba incha allah waaye rek di sant di gërëm sama caméra woman bi Fama Dramé naan ko cant ak ngërëm ñeel na la bëkk néeg su fi joor jàkk maa ngi lay bégee bu baax a baax a baax a baax amal jàmm ah umu laay laay maxtaan kenn du yow bég naa ci yow ay da jufu ñoo ko bàyyi amal jàmm bu baree bare bare daba jóoba jubba damay kontaan ci yow waaye mère Della faal damay bég ci yow bu baax a baax a baax borom ndékku yu neexee ah bu leetoo setee ba ñu mën cee toog yaa waral loolu bor ak borom groupe nopp sa jëkkër en ah, faama man mère dañoo bàyyiwul dara xale yi groupe nopp sa jëkkër en ah, mère Della maa ngi koy bégee bu baax a baax noonu laay def daal dem ba biir faja cité faja fekk fa sala ah madame Guèye Séri Bira di ko ñaanal jàmm ak gudd fan sama xarit bopp bi sama moitié bi naan la guddal fan lu bare bare bare waaye sant internautes yi national euh, international dañuy gis commentaire et tout ñu ngi seen ginnaaw bég nañ ci yéen bu baax a baax noonu laay def jox leen dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen jaajëf